fa athaarum ila yawmi ddin bokk julli di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi ñu sante sun borom wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Cheikhul Xadim ñoo ngi leen di nuyu di ci weer wu tedd wii tabbi di rajabul fard di weeru màgg wu tedd bu bari ngëneel weer wi nga xam ne ci lañ rañaane woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko masjidul xaram ñu dem ci baytul baytul maqdis baytul aqsa daje fa ak yonent yépp waaye ci la def mi'raaj itam dem ci juróom-ñaareelu asamaan daje ak boroomam ñu jëflante fa jëflante yu bari te jëflante ca bokk ca jox gi mu ko jox julli juróom loolu ni mbir mu màgg mu tedd moo xam ne lislaam gépp ko bokk waaye nu sunu jagle bopp muy feeñu Seex Mahamadul Faadil ci weer wi ci bis boobu muy guddig ñaar fukk ak juróom-ñaar ñaan sunu borom mu defal nu nu màng mboolem ngëneeli weer wi yépp ak xéewalam ak barakaatam te yàggoo ko fekke ñaan Seex Mahamadul Muntaxaa ma ne ci bopp yoon yépp yàlla yokk ko fan ak wér ba mu àggale mboolem ay naalam ak yéenam a njaboot Sëriñ Tuubaa gépp su ko defee ajuma ji weesu dafa mel ni nu ngi woon ak yéen ci fi jamono toll ci lenn ci yàqutey jikko yi ba tey génn ñu tomb booba moom la ñuy wéyal ñu ngi tolloon ci di wax yàkkamti gi ndaw ñi yàkkamti seen àdduna ba tax ñuy dugg ci lixóor yi ñu war a dugg E, topp yu yomb yi nga xam ne xëy na comme ma ca nekk ak pour sa tax na ñu song ko te dara dëppu ca diine lislaam te dëppu ca diine dëppu ngor loolu dañ ci delsi waa ñu xam nag yàqu-yàqu yooyu lu ci bari raam na ba agsi ci dëkk bii nu nekk muy Touba ñu fàttali na Touba dafa am lu taxoon borom sanc ko dëkk bu ñu sanc xaalisan li wajhi llaahi taala ibaadatan lahu wa xidmatan rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa tarbiyatan lil atbaa'i wa taksiyatahum boo nee benn ci Tuubaa doogaaw ñaar dëkk boo xam ne borom ki ko sanci jëmmi yàlla dong dong dong tax mu sanci ko ngir jaamu ko fa liggéey fa yonente bi sallallahu alayhi wa liggéey bu liggéey liggéey bu fees bu wér waaye tarbiya mbooloo mafa nekk defa seeni xol defa seeni jikko bañ nekk jaami yàlla yu ko ma sëkk ay jaam yu sell tey sellal tege ci aw yoon war nekk dëkk boo xam ne ku fa ñëw da nga war a soppi ko su mi mbubu ma nga soloon feneen sol meneen mbubu ma dëpp ak mbubu mu dëkk bi loolu daa mel ne dañ koy bëgg a fàtte la seer ba faal ne woon suñ Bàmba ka mën a ñag ñag na dëkkam bi ba lenn luy róor mënta bëtt ñag bi tàbbi ci waaye damay ragal nag ëllëg la koy róor juddoo ci biir biir ñag bi wax jooje nag lu dëgg lu fees la ñu xam ne dëkk bi dafa Tuubaa du Ndakaaru du lax du Mbuur Tuubaa dëkk boppam la boo xam ne dafa am aw doxinu boppam ku fi nekk war a tënku ca loola war caa dox am melokaan wax nday wuteeg melokaanu ko dëkk feneen bërki démb ci àllarba ji bi ñuy julli gee ñuy julli xamuñ li ñuy julli ndax ay yooxu te dara walu ko lu may ab football dong am am po am po ak te sëñ Tuubaa lim gënoon a bañ may am po la fi xew waroon a xew feneen fu dul ci Tuubaa dëppwut ngor dug taalibe duy taggin koo xam ne fi nga dëkk diggam ak fii sëñ fii la sëñ Tuubaa nekk ay mètre rek la te nga ne moom nga yaakaar jàpp ne boo ko gisoon lépp loo xam ne doo ko def loolu rafetul nga di ko def te dëkk bépp doon riir akum yoox ak i yoox te ampa ampa képp ko doxa du jóg musta musta maslaa ci mpo lu toon lii day ci wex kuy fa am akum mpo musu masla maslaa njabootam gi naka jekk loolu lañ doon sàmm si Abdul Ahad tàmbale ci Seex Moodu Mustafa ñi fi jaar ñëpp ba ci Seex Ahmadu Muntaxa mi loola la ñuy sàmm muy muy muy ndono loole nga moo moo taxoon sañ ci dëkk bi moo tax mu def fi fi def nekk dëkk boo xam ne dafa yéen mu nekk dëkk dëkk bu ñu jaamu yàlla di fa sellal ku fi dëkk mucc lore seetaane ak gàllankoor yi gàllankoor diggante ak yëpp. mu nekk suuf su barkeel itam soo xam ne lépp lu fi waaye jëf dañ koy ful su dee jëf ju sell la ñu ful ko mu ëpp boo ko defee woon feneen waaye soo fi jëfee jëfi safaan dañ koy ful ndax barkeelu dëkk bee tax kon ku ne war a moytu ku ne war fegu waaye ki dëkk Tuuba dafee da cee raw nag ki dëkk Tuuba mbaa ki ñëw Tuuba gannaaw dañoo gàdday sunu suufi maam ne sëñ Tuuba li nu bëgg a dëkkal bàyyi sunu lépp ñëw fekk si ko lay ngor ci nun tam tam tam jinu tam jinu ngor goo xam ne wóor na nu mën na koo mën na koo fay kon lañ koy delloo njukkal mooy nekkal ko ci ak bëggam lam rëdd la fa tegoon tànkam yar ci ak yar ci ay taalibeem foofee ku fa nekk boo tuddee ne ab taalibe laa itam da ko tuddoo rek waaye nekku ci yow te ak rek na mooy lu nu mën a jariñ sunu tey ak sunu ëllëg moom képp loonu mën a delloo njukkal Serigne Touba amul luñ ko mën a faye amul dara luñ ko mën a faye loolu nekkal ko ci bëggam gii sàmm ndonoom li wéyal ko te bàyyi nag caaxaani tubaab yi nga xam li nga xam dañ dañ la ko indi rek muy ay caaxaan yoo xam ne tegewul fenn du dara loola loola wër wër wërti fis fii ci dëkk bi di Tuubaa nan ko loolu ndaw ñi maa ngi leen ko bàyyi loo xel bu baax a baax a baax a baax ak lenn ci mag ñi ndax la ci ra la ci ra léeg da ngay am looy ji ndaw ñi te te fekk mag ñaa ngi ci mag ñaa ngi leen lijji ci biir kon ndaw ñeeg lenn ci mag ñi kon ñu ngi leen di bàyyiloo xel loolu ñu xam ne Touba du Ndakaaru du Mbuur du feneen dëkk la bu sell bu tedd bu màgg bu làmboo ngeneel yu màgg màgg màgg màgg te ko fii nag jalgate mën ngaa yàqule te doo ko yëg mën ngaa yàqule doo ko yëg nanga bàyyi xel bu baax a baax su dee loolu luñ doon tàmbalee la ngir rek xan am na lu nu metti te metti kilifa yëpp nag ci lii am ci barki dem ci ji te noo noo ngi ragal mu amaat nag ci bis yi ci kanam ndax la tax ñu ko def jeexagut kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax xam ne Touba lañ nekk te Touba bokkut feneen soo ñu wéel nag lan tolloon ci yàquteg jikko yi tolloon ci di leeral ne ndaw ñi dañoo yàkkamti seen adduna ba tax ñuy dugg ci lu ñu wët a dugg dañu xam ne ndaw teel a sotti jigu ko ndaw teel a sotti jigu Cheikh Mahamadou Fadil da daa wax ne toq dàkk yuréet pëng wërsëg aku fan ñoo tolloo ñoo ànd fu sa wërsëg mate saw fan mat wërsëg fu mate saw fan mat sëñ Fall daa wax ne toq dàkk yuréet pëng mooy sa wërsëg bu dee toq-toq di ñëw ndànk-ndànk day day sax dàkk mooy day yàgg waaye su ne yuréet na pëng benn yoon jeex nag soobaa nag danga fi dal di jóge sa lépp saw fan yi day daal mat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 الله أشهد أن محمدا رسول ñu xam ne kon ndaw teel a sotti jigu ko kon Cheikh Abdul Ahad daa wax ne ndaw tell li jigu ko su ne tëll rek ne dagaj su ne rek ne dagaj mooy ndaw lu teel a fëll maas teel sotti lépp mbat neen nam ñëwee noonu lay delloo du fi taxaw ñu xam ne itam mboolem lu yàlla daa alage aw xeet bu njëkk lépp nit ñaa ko ñaa ngi koy def nii fi nii mu daj kàpp adduna moo jur musiba yi di xew yépp coronavirus bii jaaxal àdduna loolu dong nga ko waral mbënn mu metti mi faral di am ci biir nawet yi moom dong ko waral yëngatu gu suuf si yëngatu ci yenn yenn réew yi tam bari lool mbon gu bari mbon gu bari gi rek kee sabab si bàyyi ko xel te su ma newoon mbon gi de fés na ci jéeri jeeg ci géej gi waaye lépp maa kasaba tey di nas lépp nit ñaa ko ci seen loxo li yudiqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un la cay la cay feeñ nag ci ay ay fitna ak musiba tuut la lu leen yàlla mosal ca sawabus la la seeni loxo góob ngir rek ñu dellusiwaat ci yàlla saabu bu fitna wàccee nañu xam ne du fay suñu borom bu doon fayu kenn du des ci kaw suuf wax ne lépp lu leen dal ci musiba yéena ko yéena ko fàggu ci seen loxo teewul wa ya'fu an kathir la waxaat foofa teewul yàlla jégale na lu bari jëlee lu bari bàyyi lu bari waaye su leen toppoon kenn du fi des yépp salaasu junjoon junjoon yoo xam ne dana ñëw mujjug jamono yooyu yëpp fi mu toll ñu ngi ñu moom Ah, ma nazala balaun illa bi dan wala rafia illa bi tawba amul benn balaa bi wàcc lu may bàkkaar ko sabab wa dee si ko yëkkati lu may ci ak tuub ak jégalu yàlla gu moo tax bi doom ja aadama jëlee engagement bi mu jël ci inna aradnaa ja mooy la ñëpp gàntu moom mu ne moo ko attan bañ jox ko ko la su mboon aji mooy fas naa yéene mbugal nag képp ku ci naa tey góor mbaa muy jigéen ak képp ku ci bokkaale tey góor mbaa muy jigéen waaye dinaa jéggal nag ña ña ca day julit ci góor ci jigéen te feex gi mooy nangoon yako yaa ko àttan engagé ko ba noppi nag rafetaloo ko suñu boo wax ne su fekkoon jàppee ne nit ñi seen tooñ maanaam jàpp nga xam mooy mooy fay goon wax maa taraka ala min dabba kon kenn du des ci kaw suuf so leen jàppee seen tooñ nee na kenn du des ci kaw suuf waaye lu ju ñëw ju nekk ak mosal la tuuti ci lenn ci li nu jëf waaye nag la ca des nag da koy néege ëllëg ndax daa tëj aje wala wala ko yuwaqiruhum ila ajali musamman waaye day di néege nag ba ca bis boobee nga xam nag kenn du ko ci rëcc su boobaa nag eh, loo jëf ak loo waxe loo fas lépp ñu fay la ko su rafete ak su ñaawee bokk na jikko yàqu yooyu mooy ger gi ger ni mu tasaaroo ci ci àdduna ci réew mi tàmbale ca kaw am na ñenn ñu ngi koy ñu ngi koy jiiñ wala dañ caa gën waaye yaatu na lool lool lool li ci réew mi te géeroo ca mu jàpp ne bariwut euh, tayit ger dafa yàq amu réew dafa yàq jikko gannaaw bu noonu lu yàlla xaraamal ba noppi bokk ci ñi yéen saasam rëbb leen fa innahu laana alwasilata wal mustawsilata wan naamisata wal mutanammisata wa laana aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidahu wa laana arrashi wal murtashi wa laana al aaqa li walidayhi wa laana man dabaxa li gayrillah wa laana man gayara manaar al ard ak yeneen ak yeneen ak yeneen rëbb na kii jokk kawaram ak ka ko koy jokkal rëbb na kiy jàmm amtuñ ak a ko jamal rëbb na kiy lekk riba ak kam ko séqal ak a ko bind ak a ko seere rëbb na itam kay ger ak kamu ger rëbb na it kay dogoo ay waajur mbaa mu may leen rëbb na ku ren di ci loo xam ne yàlla taxut fan yee weesu muy 31 décembre 24 ba bari na julli ñoo xam ne dañ dañ dañ koy dundal di ca feetu te loolu daganut ndax feetu ñeneen ñu dul ay jullit la te ñoom day am nañ fa loju day ne sunuy koor ak sunuy tabaski ñoom duñ ko yëgal seen yaram kon waru waruñ ko woon a yëgal sunu yaram ñoom ñun ñun te dañ noo digal ñu ak ñoom ci lépp ab jullit waru ko dundal sunuy feet am nañ ko yooyu lislaam kon feetu jeneen diine ab jullit waru ko yëgal yaram taban ñu ci rendi waaye dañ jàpp lu ko ca rendi rek moom mbir day am dañ ko bàyyi xel bu baax a baax rëbb na it kii soppi suuf maanaam ki nga xam ne ci misaal da nga dend nit pàkk nga fexe ba tuxal borno ya ba jëli mètre wala mètre ci këram wala loo ci jël lu tuuti tuuti rek loolu mooy taxyiru manaaril ard wala da ngeen ne sës ay tool nga fexe ba tuxal digg ba jël ay mètre wala mètre ci ci toolam loolu ba ba tey bokk na ci ñi nga xam ne tudd nañ tudd nañ leen ci rëbbum yàlla <coughs> yéen saa suñ tudd leen rëbb leen ni ko noonu ak ñame riba rawatina ci yenn commerçant yi nga xam ne ragaluñu yàlla lu ñëpp nag ba ñenn ci ñoom ragaluñu yàlla ca la ñuy jaay kuñ mën a nax nax la ñeneen di jar la jaay ñeneen di ca jar te jar mooy jaxasee ñaay ma lu ca bokk ngir gën a bari sa sa bénéfice loolu dafa xaraam riba la man rachana fa lay séminaire yi saa sama waxoon mooy képp koy jar bokkul ci noonu te su ma nee wa ahalla allahu al bay' wa harrama riba yàlla daganal na jaay waaye nag xaraamal na riba njaay nag dafa jege ak riba lool moo tax mu tudd njaay daal tudd riba da caa yomb waaye su sellee nag liggéey bu ko gën amut ndax li yonent bi saa sam waxoon ne ah, attajiru saduq ma an nabiina wa siddiqina wa shuhadaai wa salihin commerçant bu dëggalee ëllëg bu dekkee ñi gën ci nit ñi lay àndal yonent yi ak ñu baax ña ngi tëdd ak siddiqoon ak shuhadaa yi ñoom la ñoom lay àndal te ñoo ñoo gën ci nit ñi te la ko ca bool du jaamu yàlla maanaam du julli du waaye njaay mu sell rek moo ko moo ko may loola waylu lil mutaffifin na commerçant yee ko su ma toskari ñeel na jaaykat yi nga xam ne suñuy pees lu jëm ci seen bopp di jënd dañuy dugal ay tappale ca poids bala ñuy peese bu dee kilo la dañuy fe dañuy dana ëpp kilo day mel ni ko te ëpp kilo suñ lay jaay yow na dugal ca tappale yoo xam ne day day daanu mel ne mën na kilo te boo ko peesoon feneen mu manqué kilo mu ne ñooy xanaa dañoo jot ne duñ leen dekkal ëllëg bis penc ñu tey ci sama kanam te waylun ibnu abbas nee na waylun aw xur la ci jahannam boo xam ne jahannam ci boppam day musu aw xur ibnu abbas nee na waylun aw xur la ci jahannam boo xam ne jahannam ci boppam day muslu xur waylun kon day mel ni mooy dëkkukaayu kon commerçant yi nga xam ne sell luñ la ñuy jaay te fii ne li ne na ci marché bi lépp ma ne su ko wax bi ci topp mooy mooy ñàkk war ma gi xew li ma doon wax léegi ci la bokk Tuuba dëkk la ba am war ma nañu sàmm war ma ji waaye fi kenn wër maalatul ko war a war maal kenn wër maalatul la war a war maal te Sëñ Tuubaa da daa wax eh, ñaar rekk la na war ñaan maanaam mucc ak njub rek la ndaw war di ñaan loolu la ko waxee njub rek la ndaw di ñaan mucc nag des na ko sàkku ci juróom wormaal ko mata wormaal wormaal lu mata wormaal lu ne baax na nga def ko luñ ne na nga bàyyi ko tey ñaan yàlla tey yàlla mucc ne njubit des na ko sàkku ci juróom doo tooñ doo fayyu doo xëccoo luñ na jub na nga ne ce tey ñaan yàlla jub Sëñ Tuubaa ne kon ñaar yooyu rek la ndaw war a yitte war ko ñaan waaye wax na itam sabab yay tax nga mën nga àgg ca lam ca jiital nag ca lay tax a mucc dajee ko warmaal ku mata a warmaal ak warmaal lu mat warmaal nañ ko bàyyi xel baax te toll nañ jamono joo xam ne doom warmaaletul bàyyi taalube warmaaletul sëriñ rak warmaaletul mag soxna warmaaletul borom kër soo demee ci internet bi sun sëriñ si gën a fonk ñi nu yaakaar aju ci ñoom lañ leen di yàq weñ wu ca tong dee te liñ liñ liñ nu xamee woon nag mooy war malante kenn ku ne jàpp ne sa moroom la gën nga jox ko cër tal bokk na ci sun sun sun gànjar yi ëpp solo dañ koy bëgg a ñàkk ndax lu bari lu ci bari mi ngi ruus léegi foo toog yàq fa sa mooy fu mu toog yàq la fa ba ci lenn ci sëriñ si mel ni man nga xam ne yeewuñu ab mos la ko day dikk ci yow yàq fa sa mbokk nga di ca bëgg xasal la sa mbokk di la yëkkati ci kawam nga di ca bëgg loolu mu musiba la eh, sëñ sëñ Mahmoudou Xaris si daa waxoon ne kilifa gu ne war naa am ci wetam mag mu dañu gu réer te amub reer naan soo ko amee sësali ci sa jëmm yaar lay seq yow mat naa def ak ëpp naa def gannaaw dañ nag réer lu lay wax ci xam-xam la koy teg gannaaw am na reer soxla lu dara doo jaay kon dëgg rek la lay wax mu teg ca waaye mag mu dañu tuk tug réer amutub reer soo ko sësalee ci sa jëmm yaar lay seq yow man nga ko sañ nga ko kooku soo ko toppee yàqu te ka nga ëppal njariñ nag moo la moo la gën a mën a yàq la sëñ bay jaxat ne woon xarit nit ñi kenn mën la tax ñuy gërëm te kenn mën la tey ñuy gore dee ka jëw dañuy yekk dañuy lekk sa yëf de wax say ayib dafa leen yu rek ngir yàlla yow lu fi xew mooy xas te fi xew ak i fen kuy mer di wax sa ayib suy bëgg di wax loola sax loo xam ne lii gëmu ko kuy bëgg ci yow ne la yaa gën ñëpp saa su meree ci yow ni ñëpp la gën wax sa ayib wane ko doo daw baraw ci mbirum ni maa ngi jël ngërëm moo ko moo tax defal la nga mën yooyu loo mënul bàyyi ko yàlla na sunu boom bool dimbale bool defal tawfiq xiir na ci njub te saxal na ci te def na dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangu nu sunu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu